baabu li ab buntu la fil i'tikaaf ci li'tikaaf li'tikaaf mooy sax ca jàkka ja boole ci di wóor bëccëg bi ak a taqoo jaamu yàlla moom nag lu ñu sopp la lool ndax day defar nit ba mu baax a baax yeneen li'tikaaf yi bokk ci naafila yi nga xam ne daf koy def rek ci bëgg lu baax waaye nekkul lu war day wane ne cosaanu baat bi ak maanaam ñu ko jox ci yoon nuroo nañu ndax baatu xukkoofu xam ci la istiraaf bàyyi ko xukkoof mooy cosaan ak taqoo ak sax lay firi te xam nga li itikaaf da ngay saxoo jàkk ja boole woor ak ak jaamu yàlla kon moo tax baat bi la mu daan tekki naka jëkk njëkk ñu koy jox moom maanaa it ak maanaa ñu ko jox ci charian ba tey sorewuñu moom nag nee na faaw dañ cee boole woor waaye sax ci jàkk ja kese di jaamu yàlla te boole ko ci woor bëccëg bi du ma tax a doon li itikaaf wala te it fan yaa ngi koy def day tegaloo maanaam bu fekkee da ngaa yéene woon tegale tegale ko dong ngay sañ bu fekkee yéene woon dara it bu fekkee yéene woon dara it ñu sant la tegale te doo ko sañ a bañ bu des nag boo ko yéenee ci teqale boo ne man daal yéene naa itikaaf juróomi fan waaye damay def mel itikaaf yi benn kat li mel ni sën mooy moo defee benn noppalu benn ba may ma dal loolu kon moom loolu ngay def kon kon sañ ngaa def loola boo defee benn noppalu benn defaa benn ba kenn mat itikaaf kat nee na ci jàkkaar lañ koy defee kenn du ko defee ci am suñu néeg rek wala sa butig rek wala yu demee noonu ci daa war a nekk jàkk yoo xam ne yi doon jàkk yaa ko sàkk xam ne ku sañu doon jàkk joo bari te sabrak rek nga xam ne yow doon yaa koy dem te nekk jàkk joo xam ne ñeneen keneen mën naa ñëw jaamu ci yàlla fan ya ngay lihtikaaf bu fekkee ajjuma bokk na ca te fekk jullit ajjuma war la kon na ngay dem ba ca jumaa ja ndax bu dul loolu tam bu ajjuma jotee faaw nga war a génn julli ji te booy génn rek la nga defoon yàqu boo ko defee jàkkee sa koñ bu ajjuma ñëwee faaw nga war a génn julli ji te booy génn la nga defoon daal di yàqu bu ne la nga defoon yàqu nag mooy xëy na doo ñàkk tuyaaba ji waaye fan ya nga defoon da nga koy defaataat kon nag bu fekkee ne fan ya nga ni sa lihtikaaf bisu ajjuma am na ja te ajjuma war la boole ci kon da ngay dem ba ci jumaa ja bu fekkee bis ya nga ni sor nag moom ajjuma amu ca mbaa ajjuma warul nag kon mën nga ko defee ci jàkk ji bokk tu jumaa li ci gën a néew nag mooy benn bis dong loolu moom moo ci gën a néew waaye nag li ci gën ci mat ko moom mooy lu néew néew mat fukki fan soo ko mën def fukki fan yi mujj ci weeru koor itam moo ci gën dina boo ni soree li ci kaaf benn fan moo lay war boo ni soree ñaar moo lay war boo ni soree ñett moo lay war li sax nag mooy nga warlu ko te fekk waru la woon waaye li sol moom bi ci ëpp tàmmuñ ko ndax léeg-léeg nga dem ba ci biir doo ci amat doo ci amati cawarte da nga koy defee ngeen ne mënutuma ko ñàkk a def soo ñu soree lihtikaaf genn guddi dañuy wax ne la bëccëg mënu caa ñàkk bokk ndax ne nga mënu si ñàkk woor te koor bëccëg lañ koy def kon boo ñu soree genn guddi dañuy wax ne kon doo genn guddi da nga coobaale bëccëg ba ca topp kon dem daal lay war guddi ak bëccëg waaye mënut a mënu si mënu si ñàkk boole bëccëg ndax saa mu ànd ak koor te koor bëccëg lañ koy def. bokk na ci sart lihtikaaf mu bañ a dog koor ga te tay ko bu daggee koor ga. ci lekk mbaa naan te tey ko rek lihtikaaf ba yàqu na day tàmbaliwaat sañam doon def xëy na nag du yàq moom tuyaaba ja bu fekkoon ne nag tuyub dog ga kon moom lihtikaaf ba baax na day jàll rek àggale moom daa xaw a wutanteeg kooru kese xam kooru kese bu jot bu xasee so dañu sañ a lekk ka naan ak jotee ka nuy seen te du wàññi dara waaye booy lihtikaaf moom doo xam jotee ka ngay seen dara dara dara du ci guddi du ci bëccëg boo ko defee sax ngir fàtte mbaa ngir tey ñooy moo la nga defoon lépp yàqu nga war koo tàmbaliwaat nga seetlu ne itam du rekk jëmmi jote kese ba moom dong moo koy yàq waaye kay laalante ci yaram sax wala fóon buñ ci jubloo bànneex sax mu daal yàq li ci kaab ba bu fekkee ne fóonu tàggoo la mbaa fóonu yërmande te bànneex amu ja nag kon moom du ko yàq waaye bu foon amee rek wala laalante goo xam ne kooku bànneexoo taxan mu di ko def rek mu am bànneex ak mu bañ ko caa amayam listikaaf ba dal nay yàqu su ko tawat dalee ca biir listikaaf ji bu mënta woor kon day bàyyi rek ba wér bu wéree daal di àggale àggale gi mooy fan yam defan baax na da ciy fësal rek jàll bu dee tawat joo xam ne nag moom aayiwu ko sax ci jàkka ja bu ko neexee sax ci jàkka ja bu ko neexee dem këram bu dee tawat yoo xam ne nag moom daa mënta ànd ak toog ci jàkka kon day génn rek moom dem këram ba tane door a del si àggale jigéen buy listikaaf far gis deret faaw moom day génn ndax ku amee deret sañuta sax ci jàkka romb rek jàll sax dañu ko way aaye kon faaw moom mu dem këram ba deret ji jeex mu sangu ñëw àggale moom it la mu def moom it la mu defan da cay sësal rek jàll waaye teewu koo baax daa wax ne nag ka tawat ñu wax ne ngànt la ak jigéen ja gis deret ñu wax ne ngànt la jamono yooyee mu nekk ci ngànt li ba bàyyi lixtikaaf ji na sàmm ormay lixtikaaf ji te loolu mooy bañ gaa woor rek lay sañ du tax nag mu sañ a joteeg ka muy sëyal ci sawukaay mbaa laalante ci yaram mbaa dara bañ gaa woor rek lay sañ ba tawat ji jeex mu dellu si àggale wala bu dee jigéen ja ba deret ji jeex mu dellu si àggale ka ame woon deret nag saa yu deret ji jeexee na daal di gaaw delluwaat ca jàkka ja ka tawatoon ba tey saa yu tanee na daal di gaaw dellu ci jàkka ja moo xam guddi la moo xam bëccëg la nee nañu sax buñ yeexee dellu ga daal di war a tàmbaliwaat fan yañ defoon mel ni ku defutoon dara bu ñu delloo nag ci waxtu woo xam ne mënu si caa tàmbali woor ni ki gannaaw bu fajar fenkee la jëm ci bëccëg bi kon bis booba duñ ko wàññiwaale maanaam nag xos bay li ci kaaf mu sañ a génn fa muy li ci kaafe muy jàkka ja mbaa jumaa ja lu may aajo joo xam ne mënta ñàkk ci doomi aadama te loola mooy bëgg a génn dem ca wana wa saw mbaa xayta wala ajuma mu bëgg a sangu ca ngaayal ajuma mbaa bu dee bisub xiit mu bëgg a sangu ca ngaayal xiit mbaa mu génn bëgg a jàppi mbaa bëgg a sangu janaaba mbaa génn bëgg a lekk bëgg a naan yi dem noonu daal moom rek moo koy tax a sañ a génn ca fam doon li ci kaafe te it aaji jamuy bëgg a faj fu mu gën a jegee rek te mën faa fajoo du ko weesu bu amee fu mën a fajoo fu gën a jege mu weesu ko jàll rek lam defoon daal di yàqu mu war koo tàmbaliwaat te it bu génnee du sañ a taxaw di waxtaan ak kenn bu génnee rek taxaw di waxtaan ak kenn ba tey lii ci kaafam yàqu mu war koo tàmbaliwaat yéen bëgg nañ bu fekkee da ngaa bëgg a tàmbali ci guddi génn jëm bala jant yoo so rek nga dem ci jàkk ja jant bu soree la fa loolu lañ gën a taamu man ngaa takk foofu rek ne bu fexee ba dugg ci jàkka ja balaa fajara fenk rek mu daal di baax ndax xam nga ne waxtu fenku fajar wa mooy tàmbali yéenay koor ga ba tey bu xasee dugg ci litikaaf du sañ a génn da ngi seetu ko tawat du génn ngi seetu ko tawat la ma defoon yàqu mooy mu war a tàmbali waat fañam doon def lu may waaye nag bu fekkee ne kenn ci ñaari waa juróom wala ñoom ñaar ñëpp dañoo tawat faaw mu war a génn dem seeti leen ba tey bu kenn ka faatu woon te kenn ka moom des di dund it dana war a génn jaali ka nga xam ne mooy dund du mën a ñàkk lu mu ci mën doon nag bu génnee rek lam defoon moom yàqu bu ne lam defoon yàqu nag mooy faaw fan yam defoon da koy defaataat wala yu sal yi du julee xalaa janaasatin ba tey dañ koy aaye bokk ci jullit néew bi ñu andi woon néew ba sax ba mu jegee jàkka ja ak lu mu baax baax itam sib nañu rek mu ànd ci jullit néew ga nga seetlu ne li mu wax mooy moom mi litikaaf génnul jàkka ja teewul nag mu ànd ci jullit néew ga waaye taxul mu génn jàkka ja boobu la yem ci sib waaye bu génnoon jàkka ja ngir ànd ci jullit néew ga rek litikaafam dal yàqu te kat bu fekkoon ne génn ga daa war ci moom ndax moom rek moo war a taxawu néew boobee mënta ñàkk baa ñu war koo waajal moom néew ba te moom rek moom la war gis ñu keneen koo xam ne moo ko mën a def su boobaa faaw day bàyyi li ci kaaf ba génn jëm ci néew boobee bu dee jullee gaa bu dee waajal gaa te du tee rek moom li ci kaaf ba mu defoon yàqu maanaam moom day tàmbaliwaat bu ñu nee du seeti ku tawat ba tey fa mu nekk ci biir jàkka ja ku tawat ñëw foofu mu dem ne ko ah mbaas yaa ngi tane waay daal koy seet ci biir jàkka ja moom ba tey loola sib rek lay doon waaye bu génnoon ne day seeti moom ku tawat ka kooka moom day daal di yàqu liiti kaa moom daal di yàqu yaxantu mooy jaay ak jënd ngir am bénéfice loolu waxaale wuñ ko bu xasee dugg ci listikaaf moom amul sañ-sañub génn di jaay mbaa muy jënd ngir bénéfice la mënti ñàkk kay ci lum lekk mbaa lum naan mbaa loo xam loru na ca te it yor na njëgg moom may nañ ko rek mu dem fu mu gën a jegee jënd ko fa ñëwaat loolu moom sañ na ko maanaam boo dee listikaaf boo ci bëggee dugalub sart ne bu nangamee mu bàyyi listikaaf ji itam du tax ñu faale sart booba nit ki mu ne man kat baykat laa dama dugg ci listikaaf waaye bu bët seddee li may sart mooy damay daal di bàyyi listikaaf bi dem bay mbaa sama soxna kat daa tollu diggante li may sart mooy bu may listikaaf itam bu ma déggee ne am na gone daay génn wuti lu ma ko ngéntee sart yi mel noonu nga xam ne daa dàqoon teeg listikaaf du ci am benn njariñ bu xasee tàmbali rek moom bu génnee ngir dara ci yooyu rek lam defoon yàqu mu war a tàmbaliwaat defaat fan yooyee mën naa doon ilimaani jàkk ji nag daa mel ni sax sopp la war a doon ndax yonante bi bu ko mësaa def ca jàkk ji moo daan doon ilimaan ja bu ko neexee nag ñu mayee soxna bu ko neexee moom itam ñu may ko soxna dañu bañ nga defee laa yem ak armal aj mbaa umra déedéet yemuñu moom mën naa mayee soxna mayees na ko may soxna te du wàññi dara dafa wax ne bu fekkee ne yow sa listikaaf da nga koy fas yéene jeexal ci bu weer yu jeexee rek da ko takk rek ci bu weer yu jeexee laay bàyyi moo xam ne nga tàmbalee ci bopp weer moo xam ne nga tàmbalee ci digg weer waaye daal li nga wax moom mooy bu weer yu deexee laay bàyyi kon nee na bu la neexee bis ba ci mujj bi jant bi sooyee nga génn fa saas bañ faa fanaanaat waaye li ñu ci bëgg a teg nag moo tax mu wax la loolu xam nga danga ne rek man bu weer yu jeexee laay jeexal sa listikaaf kon bi ñetti ji moo ci mujj jant bi sama rek bu la neexee daal génn fa saas dem sa kër ndax jeexal nga waaye li ci bëgg a teg nag moo tax mu wax loolu daa waxan léegi ne fan ya ngay listikaaf boo demee ca ba ci mujj ba jant ba so rek mën ngaa daal génn ñibbi sa kër du jar ngay fanaan ca jàkka ja mu ne nag bu fekkee ne bis ba nga jeexalee daa tombe guddi googu ngay nekk guddi xëyit maanaam ñu wax ne suba la korite ni ki nga doon def fan ya mujj ca weeru kor wa te sartan ne bu weer wi jeexee laay bàyyi kon bu jant ba sooyee duñ bëgg rek nga daal di ñibbi xaat ci sa kër dañoo bëgg nga fanaan ca jàkk ja boo xëyee nag nga waaj dem ci fa ñu jullee julli korite ga boo jógee julli korite ga door a ñibbi sa kër nga xam ne kon sësale nga ak jaamu yàlla ci ak jaamu yàlla ñu bokk sësaloo ñoom ñaar mooy jaamu yàlla nga nekkoon muy listikaaf bi da nga ci sësale ak jaamu yàlla muy julli korite gi teew na bu la neexee moom it bu jant bi sooyee rek ñu ne weeri feeñ na ndaal dem fanaan yi sa kër boo xëyee door a dem nag ci julli korite ga waaye daal li ñu wax léegi moo gën fanaan ci jàkk ja ba xëyee ci jàkk ja dem julli yi julli korite ga